Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 7 juin 2024 une fa jógee dem section de recherche fekk fa ki nga moi le beau frère de lex président de la république du Sénégal Macky Sall Adama Faye que frère ci ki nga moi ni mooy président de Maram Faye Sall ginnaaw bi ñu ko sa section de recherche mettre en garde à vue ci ben somme bo escroquerie foncière qui ci terrain bu mu jaayoon ou joxewul papier yi 450 millions ba noppi ñu daal di fay bàyyi def ko garde à vue kii di que ci Maram Faye Sall soxna njiitu réew mi fi nekkoon di Macky Sall jàppale ni que dal dal dina ñibbi kërëm suñu sukkandikoo suñu source ñi ngi xamal dal ki di frère Ibou Faye dal dina fay lu tollu ci cent cinq millions de francs CFA ba nopi dal di garantir li nga xamanteni moy mooy en moins de vingt quatre heures ginnaw biñ ko placé en garde à vue pour ko rek ki di beau frère président sortant di Macky Sall dañ ko placer won en garde à vue fofu ca section de recherche bu Colobane jëmele ko dal ci ben affaire escroquerie bo xamanteni dafa encaissé won xaalisu ben homme d'affaires bi nga xamanteni daf ko waron jaay ben terrain mais amul won ben suite mu refusé finaliser li nga transaction Adama Faye na table 105 millions motax mu ñibi en tout cas les may wax sauf problème ak yoon ba am à problème 1 un milliard de mais mon dañ ko millions le décidé de ci table bi des moratoire mais juge bi procureur bi dañ mais Adama Faye boko upp chance mom nak fait mu li nga millions est-ce que du lu mu président de la république en tout cas Adama Faye dal dina Thank <laughs> you.